نون والقلم وما يسطرون ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu ngi sant yàlla wu baax a baax ginnaaw dañu war a tënk rek di nuyu mboolo ñu fi teew yépp ci tuuru ñi nga xam ne Euh, juróom benn région yi nga xam ne ñu ngi taxaw ànd ak c 3 ci liggéey bi di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu kilifa Ceerno Alxaaji Samba sax di nuyu mbooleem njabootam di leen wàccee seen wàccuwaay di nuyu mbooleem kilifa diine yi fi toog euh, yi nekk ci réunion bi lu mel ni kër Thiel am na muy naaj yi di ci jiital xalima bi Thierno Cheikh Niang ak ba ak rakkam yëpp ak mboolem waa kër gi yëpp di waa Ourossogui gi di jiital Thierno Aliou Thiam ak mboolem ñi fa nekk ñëpp. waaye bu ñu xaaral kañel kër seen alfa ibrahima ba xam ne fa bokk di nuyu ñëpp nag ñi fa nekk ñëpp di ñuy ci fi diine fii fii ci région Matam euh, ba tey jii des nuyu yi sëñ Xaadim Njaay di ko wàcce wàcce waayam di xam ne jëmm la boo xam ne jëmm ñu bëgg alquran bëgg jéemuñu loo xam ne foo jëm ci diine bi nga fekk ko ma xam ko lool xam ko ci anam bu rafet xam ko ci diine lislaam bi maa ngi ko nuyu di nuyu àndandoo ci biir trois étoiles dañu am tur sekk ñoom dañu am lim ku lim juum seen muxtaar kebe ku lim juum waaye bu may nuyu ñëpp bureau sëñ sëñ sëñ Saliou sëñ Saliou Seck nga xam ne ñu jiite C3S euh, di jaar ñu ci rakkam fi teew nga xam ne moom ci taxawu taxawu diine taxawu ngir samp maanaam li nga xam ne ñu ngi koy doxal ci réew mi yàlla def mooy njëkk taxaw sos lu mel ni fii ci Sénégal xam ngeen ne alquranul karim alquranul karim euh, yàlla moo ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun ñun amuñu lu dul alquranul karim ku taxaw nag di sam alquran kooku dañu ko war a sant gërëm mooy sëñ alaaji sëñ Sekk ko gërëm bu rafet muy def ci Sénégal kenn mënu nañu xam ne fii Sénégal képp ku tedd fii ci Sénégal doomu daara képp ku am jaraka fii ci Sénégal doomu daara ndekete daara mooy loo xam ne alalu yàlla li nga xam ne yàlla moo koy amaloo képp ku ci nekk nga gis leneen lu dul daara nga teral loolu woyofal daara na nga xam ne teral nga lu woy waaye suufee nga lu daara amul lu mu gën moom lañu am ñu ngi ñaan yàlla yàlla sàmmal ci daal yi quraanul karim amuñu ñun suñu diine lu dul suñu diine diine bi alquran moo ko wattu alquran diine ji moo wattu réew mi alquran moo wattu diine ji waaye alquran tamit mbind ji moo koy wattu mun nga gis ku mokkal alquran waaye mënul bind alquran waaye doo gis ku mën a limi sa mbooloo di bokk loolu du mën a nekk dafa meññ rek an yakuna al insaan muslim musliman wala yakun muminan walakin kullu mumin muslim mën nga gis koo xam ne muslim la waaye du mumin waaye képp koo xam ne mumin la muslim alquran tamit mën nga gis ku mokkal alquran mënul bind waaye képp ku mën a bind te mu te xooloo alquran nga xam ne kooku mokkal te ku mokkal alquran bokk na ci alaw yi quran mbind mi moo koy sàmm moo koy aar bu ñu xoolee ci jamono yi saxaaba yi ci xarbu ridda bi nga xam ne ñu wat alquran yu bëri yàlla def na ñu jëlee ko budul woon xalaat seen na Omar ibn Xattaab ànd ak moom xalifa bi fi toog xalifa rasulullah bi ko nekkoon dina si si jamono yi alquran dafay fekk réer lan moo ko sàmm bind parce que ñun ñëpp xam nañu alquran lu mu doon bindee waaye mu wëcc su dul lu jaar nit ñooñu nag bu ñu dem te binduñu ko day réer moo tax suñu xam-xam bu bëri tey Sénégal réer na. parce que ñi ko xamoon dem nañu tedd ak moom te binduñu looloo tax na bind alquran sëñ sëñ alal yi sëñ teg dem na fi xam ne yàlla rek moo xam euh, valeur bi yàlla rek moo ko mën a ndax xam na alquran la bokk na ci ñu yàlla nekk na jumtuwaay yàlla bi nga xam ne yàlla bi mu waxee mën naa ko jàppal mën naa ko sàmm sàmmi na ko alal yi yàlla na ko yàlla quraan karim surtout nag ñu bind ko ci xatt maxi loolu moo ma gën a neex parce que am na ñoo xam ne dañu yaakaar ne boo toppatoo woon arab yi rek yow bokk am na ñoo xam ne noonu lañu yaakaar boo toppatoo boo toppatoo woon rek bokk te suñu bind bi moo gën a fuuf bind ma rek xoolal quraan bi wane nag yàlla may na tuuba bi tuuba yàlla may na leen ma ko mu naka ni mu loolu lañu ma tuuba yàlla war a may xool leen ñu di di awa man damay jéem sax du ma gis seen xam si ma koy jéem dafa mel ni ma lu nekk ci loxo yi ci biir loolu may yàlla kenn mu daal yàlla war ba pare ñu taxaw ko bokk nañu ñëpp réew mi yëpp ak i ci may ñëpp ñu bokk may ñu yaatal ko ba Sénégal yi mu daj incha allah dañ ko yaatal ba àll bi ñu daj mooy yaatal bu ko defee ñu ngi leen di sant gërëm di ñaan yàlla lii na gën a gën kanam na gën a sax te dina sax incha allah taala بنعمة ربك بمجنون